internet yi di leen nuyu di leen ziar baax te nag euh, seen émission émission bi mu ngi tudd xew ñu koy defal tous les 15 jours te nag euh, dañ fi ñëwoon invité euh, Mouhamadou Dieng xamante ne mooy président conseil du quartier bu en trois ñu bàyyi ko mu présenter wu. c'est bon. waa salaamaaleykum maa ngi nuyu internetu Capa TV bi yëpp di nuyu. képp ku nga xamante ni mu ngi dëkk Ankapa dalee ko ci imam ratib bi muy Omar Diallo di nuyu aussi chef de quartier bi nga xamante ni moo fi teewal mairie bi muy suñu papa Demba Fall di nuyu aussi bépp mag bi nga xamante ni moo fi desandi di ñu gunge di leen ñaanal yàlla may leen fan bu gudd ak wér gu yaram jërëjëf. waaw léegi est-ce que mën nga wax ci say jaar-jaar bala ñu ñëw ci président du conseil bi quoi. waaw ñun moom suñu jaar-jaar hmm. fii lañ juddoo en euh, trois fii lañu yaroo aussi euh, fii lañu màggee euh, ñu ngi commencé école école Bara Gaye hmm. Yarax Tefes jaar Seemaan si lañ fa jógee aussi dem Jean de la Fontaine bi ñu jógee Jean de la Fontaine ñu dem Amadou Hampâté Ba université Jean lañ amee bac bi ñu demee Amadou Hampâté Ba nag en 2012 la yàlla dogal ñu arrêté suñu jàng fii Sénégal mu nekkoon lu ñu metti lool waaye àdduna moom jaam ak pexem yàlla ak dogalam si la demee Italie depuis 2012 waaw 2012 ba 2019 yàlla dogaloon na Italie presque fa lañ féete woon bu ñu ñëwee Sénégal un mois lañ fiy def en 2019 nak, on a décidé de programmer notre retour si la ñu commencé nag di def fi 6 mois di def euh, Italie 6 mois ñu demee ba nga xamante ni yàlla dimbali ñu ñu am projet boo xamante ni dañ ko fi waroon réaliser euh, biñ ko fi waree réaliser nak, ñu ne légui nak, nañu toog Sénégal après nak, si le Covid bi ñëw lépp lu nga xamante ni nii moom planifier ñu planifié woon ci kàttanu yàlla mi nga xamante ni mooy dogal lu ko neex. mu mujjee yàq lépp bi mu yàqee lépp nag ñu toog ne dinañ continuer bi ñu toogee ne dinañ continuer fii nag yàlla dimbali ñu ñu woo ñu téléphone solliciter suñu liggéey parce que aussi bi ma nekk Italie depuis 2012 tooguñu ñu ngi doon def formation parce que am na sama diplôme yëpp en coaching muy euh, coach su développement personnel yàlla dimbali nañu ba nga xamante ni am nañ si suñu diplôme. kon donc ku wax coaching wax management bi ñu yàlla dimbalee ñu def loolu yëpp bi ñu ñibbisee ne dañuy toog Covid bi yàq lépp si lañ ñu woowaatee Italie sollicité ñu pour benn contrat boo xamante ni trois ans mais entre temps nag comme dañu yaakaaroon ni ñibbisi nañ dañuy toog si la ñu jëlee conseil de quartier bi nekk président conseil de quartier. bi ñu nekkee président conseil de quartier nag ci ndogalu yàlla si lañ ñu woowee liggéey bi nga xamante ni moom lañ ñu woo. comme liggéey nag mooy priorité. après nag ci impasse boobu la ñu nekk nii entre conseil de quartier bi ak liggéey bi moo tax liggéey bi xaw a gën a métti daal. waaw amoon na ñu ko yoroon quoi nan nga nan nga ba jël ko ci ñoom quoi. waa am na ñeneen ñu ko yoroon. am na ñeneen ñu ko yoroon Yoro Fall moo nekkoon président bi. boobu conseil de quartier. sunu grand yi ñoo ci nekkoon amoon na Yoro Fall ñoom ñaa ñu ngi ci woon. Euh, ñom Mamour tien ñom Jim Mbaye bëri woon na daal ay Azizien bari woon na suñu grand yo xamni ni fi nekkoon mm-hmm. mais xam nga aduna mom nit di nga am yene def dara mais avec le temps sa temps mo la ko dul may ñom nak comme sen temps moy len ko won nak si le conseil de quartier bi nak commencé won nak di di di di nax saay mm-hmm. euh, dem ba ben moment ay jeunes yi nekk ci koñ bi décider né dañu bëgg jël conseil de quartier bi defaraat ko ak beaucoup d'engagement engagement et de détermination bi ñu ko defee ñu toog waxtaan bi ñu ñëwee sama kër waxtaan seek man bi ñu ci waxtaanee ba pare pour plusieurs raisons yoo xamante ni nii du lépp nga mën a wax moo tax ñun ñu engagé wu ne dañuy jël conseil de quartier bi waaw loolu moom moo tax ñu jël ko. est ñoom am nañ bilan bu <coughs> positif quoi yi fi nekkoon. waa conseil de quartier moom nekk na loo xamante ni euh, bilan bi à chaque fois day positif parce que li tax à chaque fois muy positif mooy mm. ki nga xamante ni nii. dafa dëkk ci quartier toog ne day jël conseil de quartier wala muy bokk ci bureau conseil de quartier kooku yéeney defar moo ko tax a jóg déjà yéene boobu rek bilan bu positif la parce que bëri na aussi ñoo xamante ni dëkk nañ ci quartier bi mais seen yoon nekkul ci quartier bi seen yoon nekkul ci waa quartier bi donc bu fekkente ni nit jël na possibilité ak tempsam ak énergie am lépp di soucier wu ci quartier bi lu ko doxal loolu rek déjà bilan bu positif la mm. beneen bi ci des mooy quartier moom kenn mënul defar lépp da ngay ñëw bay sa waar fi nga mën a yem après ñeneen ñëw jël def li ñu war a def. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi yéen euh, bi nga ko jëlee. Mm-hmm. Euh, est-ce que tamit yéen seen liggéey euh, fiñ ci war a teg. teg ko foofu wala wala bokk. waaw foofu nag li ma ci wax mooy on a failli sur beaucoup de choses. parce que en premier temps li nga xamante ni nii moom moo nekkoon suñuy objectif. ba ñu définiroon ko c'était quelque chose de très positif te suis xamanteni ni doxal quartier bu entre temps comme parcours ci lañ ma téléphone proposer ma contrat parce que bi may dem Italie dama pour un mois euh, bi ma pour un mois lañ ma proposé <coughs> contrat mais avant may dem conseil bi.

mais ñun fi ñu fayiree mooy bi ñu defee loolu yëpp dem mairie bi ba tok waxtaan ci ak Babacar meng avec mon absence nak ci la lépp tombé à l'eau donc euh, fofu ben responsable rek lay am muy man parce que ni responsable di nekké man mom moy man ma nekkoon ki nga xamante ma leader bi ma nekkoon ci kanam mm. donc euh, leader bu fayiree mission rek parce que boné nee mooy ñi nga jiite yaa leen war a wan yoon bi nga xamante ni moom lañ war a jaar donc bu fekkente ni yow mi nga xamante ni yaa leen wara wan yoon bi ñu war a jaar gisuñu la kon lépp lu ci sooxee rek yow yaay yaa tax mu sooxee daal. mais. a mhm. yow boo fi nekkul soit vice président bi wala euh, adjoint yi wala keneen continuer maanaam liggéey bi nga doon def ñoom ñu bañ la xaar quoi. waaw xam nga vice président bi li ma li ma dal moo ko dal mhm. parce que vice président bi Amadou Sy la. Amadou si mooy sama vice président. Euh, première année bi ma demee. Amadou moo jëloon relève bi année boobu muy daaw euh, am na activités yu bëri yoo xamante nii def nañ ko sama ginnaaw. mais Amadou tamit li ma jàpp moo ko jàpp. Mm-hmm. parce que moom entrepreneur la papam entrepreneur la donc yàlla dimbali na leen seen activité di élargiru mm-hmm. familial. donc ay responsabilités ci côté boobu tam dafa gën a yokk kon moom mi nga xamante ni mooy vice président bi tam li ma dal man président bi moom moo ko dal moom tamit mu éloigné wu léegi nag bi mu éloigné woo après comme ñu ñaar ñoo doon njiit yi pour man loolu daal laa la mën a wax loo xamante nii lu concret la daal ñun ñi jiite woon daal ñoo. mais tamit loolu tamit nit ñi tamit dinañ ko mën a nangu parce que tamit xam nga bureau maanaam tamit nekkul nekkul deux personnes rek. Mhm. normalement. Mhm. même bu cinq personnes absent la. Mhm. Euh, bureau war na mëna dox. voilà non lolu je suis tout à fait d'accord parce que li nga xamante ni mom mo moo nek moy euh nit ñi dafa am nit ñi gisé te aduna aussi dafa am nu muy doxé manam yow li nga wax lolu mom moy logique la logique des choses lool la mais yalla daf ñu nato dara Sénégal muy nit ñi duñu dox ci formalité manam duñu wax lu formel. suñu xalaat ak suñuy jëf ak suñuy jëflante yëpp dañ koy orienté ci lu informel tey bu fekkente ni dañu teg bureau boo xamante ni am na vingt cinq personnes euh, président manqué dafa war a dox bu ñu tegee bureau bu vingt cinq personnes président ak vice président manqué dafa war a dox mais dafa am loo xamante ni nii yàlla moo koy def mooy dafa am nit ñoo xamante ni ñooy jiitee dañuy doxal mais dafa am ñoo xamante ni yàlla daf leen na toog dañuy topp hmm. waaw ki nga xamante nii day topp bu gisul ku ko war a ku koy wax ne ko defal kooku defam day xaw a jafe hmm. defam day xaw a jafe moo tax munoo leen blâmer parce que munoo leen blâmer mooy responsabilité bi nga xamante ni yow yaa taxawoon jël ko si diggu dëkk bi ñoom jëluñu ko woon tey lu si ci munti am président dañuy wax waaw lu lu lu baax ñëpp ko bokk euh, lu bon président te président aussi dafa war a nangu loolu parce que bi ñu ne lu toll ni quartier ñu ne conseil de quartier nga taxaw ci kanamu ñëpp jël présidence yooyu aussi dafa nekk yoo xamante ni luñ la ci mun ti wax aussi da nga koy nangu te responsabilité bi aussi mënuñu ko partager parce que man en tant que président du ma jox kenn tool damay assumé lépp comme responsable. parce que tamit euh, maanaam li ngeen remplacer. Mm-hmm. ñooñu tamit duñ am tamit maanaam luñ wax ci yéen parce que réunion. Euh, réunion bi nga noo defee pour changer waat groupe bi. Mhm. yàlla def na man. fekkee ko mhm. Mhm. ni mu demee ni mu demee. waaw xamoon na tàng tuuti quoi. <coughs> effectivement <coughs> comme maanaam li xew ci. Euh, waaw foofu ñi euh, foofu dama lay rassurer dara. gis nga man li ngay wax nii mm. <coughs> nit daf may interpeller wax ma la même chose. mais man yàlla xaw ma ndimbal la xaw ma nattu la daf ma dimbalee wala mun a toomal lenn. Mm. lépp loo xamante ni nii dama koy def yéene laa ci am pour def ko parce que conseil de quartier aussi quoi qu'on puisse dire du lu lay fay du loo au contraire yaay jël sa xaalis di ci def yaay jël sa temps di ci def kon loolu nit ki bu jógee ne daf ko bëgg def yéene dong la am pour def ko te ko réunion bi ñu réunion woon foofu bi nga wax ni nga fekkee nga ko xawoon na tàng parce que aussi li tax mu xaw a tàng mooy rencontre deux générations la dafa am génération boo xamante ni ñoo téewoon conseil de quartier bi dem ba seen jot mayatu leen ko parce que loolu loolu rek la mën a doon parce que sa jot moo lay may. Mm-hmm. ngay mën a def yenn ni mm-hmm. dem ba sa jot mayatuloo ko léegi am génération bu nekk si suuf maanaam yéene bi nga amoon bi ngay jël ñoom yéene boobu la ñuy am léegi nag fii poroblème di nga xamante ni à chaque fois ñun sénégalais yi ci lay situé woo cas yu mel noonu bu présenté woo au lieu ñu xool ni. ñii kat dañu bëgg defar te ñooy suñuy rakk li ñu mënoon mënatuñu ko waaye ñoom mën nañ ko nan leen dooleel ñu leb maanaam loolu moo nekk li nga xamante ni moo moo moo gën a jekk booloo boobu moom laa gëm léegi bi ko jëlee man képp koo xamante ni nii jeune nga ci koñ bi fexe nañ ba impliqué la képp koo xamante nii jigéen nga ci koñ bi fexe nañ ba impliqué la foofu jigéen ñi ñooñu ci gën a jàmbaar parce que la moo la jigéen ñi bi ñu leen impliqué ba pare ba léegi ñoom li ñu leen sasoon ñi ngi koy doxal mais sol nañ suñu dàll ku ñu war a seeti seeti nañ la ku ñu war a waxtaanal waxtaan ak yow ak yow mais yàlla daf ñu natoo ñu nekk dëkk bu ndaw bu naxaree defar li tax mu naxaree defar man nit laa koo xamante ni yàlla dimbalee na dama koy entroit ñi fi yeewoo ñëpp ñoo ma bëgg man loolu laa gëm mm. man loolu laa parce que loolu laa ji ñëpp mm. mais dafa am ñoo xamante ni nii dañuy ne diw su bokkee si lii man duma si bokk loolu moo bëri nag endroit nag maanaam ñii buñ bokkee si lii ñii duñ si bokk pour jox la exemple bu gën a banal woot nañ fi set setal mm-hmm. mais set setal bi biñ koy def mais da ngay romb ay jeunes yoo xam ne yaa leen mag ñu dëkk ci koñ nga leen di romb di bale fi ñu toog juguñu fa te pourtant dem nga ba ci ñoo wax leen dañuy set setal maanaam problème yooyu ñoo bëri ci dëkk bi te loolu xalaatoon naa ci solution ba woote woon bi ñu mujjee woote suñu buntu kër woo imam woo chef de quartier woo lépp wax leen ne leen lii mooy problème mu dëkk bi chef de quartier wax ci lu rafet rappelé ñu historique bi yëpp imam wax ci lu rafet rappelé lañu historique bi yëpp mais bi ñu wootee loolu mais am na ay jeunes yoo xamante ni bi réunion boobu di am ci dëkk bi lañ dëkk mm-hmm. mais fële lañ toog di teg seen ataay di naan di waxtaan te bi may wax loolu dama ne woon comme ñun jeunes yi am nañ problème bi nañ fexe ba impliqué ci paa yi comme ça ñu mën a ñaax nit ñi ñu bokk benn affaire boo xamante ni moom lañ gëm mais sama vision man ak man li ma jàngat en trois mooy tant que réussiruñu combat wu fédéré ba ñëpp nekkaat benn conseil de quartier bu ñu fi mënti tegaat tam même problème yi lay amaat kon ñi fi njëkk amoon nañ problème boobu ñun niñ ko jëlee conflit de génération la man loolu laa ko jàppee au fait mm. conflit de génération parce que aussi dafa am nit koo xamante ne la mag su waxee da nga nan mm. waaw wala amul amul amul polémique daal waxna sama rak nga ngay noppi te aduna aussi romb na foofu mm-hmm. loolu nag moo indi won niñ ko jëlee won ak ay malentendu yo xamante ni nii ñenn ñi nit day ñëw ne la booy ñoo def li comme tay par exemple ñëw nañ ci euh, Mbaye Coro ne ko ñun euh, dañu dem ci yorofal am nu ñu waxee ak moom xam nga Mbay Coro Yoro Fall garaam la mm. kilifaam la moom it ko mm. mu am aussi moom nu mu ko waxee xam nga loolu malentendu la parce que aussi man ak Xaadim Juufa ku ñu xam-xam ni koñ bi duñ fi manqué kenn respect mm. donc ki ñëw ci wax jooju waxee ko noonu ba ñëw waxee leen ko noonu yooyu nak mo indi won réunion yi di am conflit yooyu noonu mais au delà de ça conflit de génération la woon pour man bi ñu ko rombee romb nañ ko mag ñi amuñu jotu ñëw di ñu wax quoi que ce soit ñun aussi ñoo waroon doxal doxaluñu bu amee ñeneen ñu mën a jël dañuy jël ñoom tamit bu ñu leen mën mënee jàppale aussi ñu jàppale leen parce que man je di e et je le répète en trois fii man ñaanuma fi yàlla tuxu mm. àdduna dafa gudd temps kenn du wax ni du ma tuxu waaw kenn du wax du ma tuxu mais man ñaanuma yàlla tuxu en mm. su ma sañoon fii laay dëkk ba faw donc foo ñaan yàlla dëkk ba faw sa njaboot war fi juddu war fi màgg suñ ko defaree cadre de vie ba mu rafet loolu aussi pour man ku ko mënti def aussi dañ la siy fekk Serigne di la jàppale. Euh, avant ma tudd bi amoon naa ay euh, retour mhm. leen maanaam comme. Mhm, maanaam mhm. li sànq rek. léegi nag ñàkk liggéey bi. dafa laaj tuuti moyen wala boog euh, volonté rek la laaj. waa xam nga moyen ressource humaine la laaj. maanaam laajul moyen financier parce que aussi pour nga bale sa koñ ba mu set nekkul loo xamante ni nii lu lu lu lu lu colossal ngay laaj ko moyen mm. maanaam volonté ak ressources humaines parce que aussi bu ñu nee dañuy bale koñ bi mm. mais ci benn dimanche mais il faut waa koñ bi yëpp génn pour ñu mën a bale koñ bi ci benn dimanche mm. bu fekkente ni benn parti rek moo génn benn parti ngay bale léegi bale boobu ngay bale benn parti set setal bi au lieu mu defar day yàq parce que li muy yàq mooy ñëpp buñ génnul mënoo matale fépp mais ñi nga balewul seen buntu koñ mais dañuy ne set setal nañ koñ bi bàyyi ñu kon ñun boolewuñ ñi ci koñ bi donc loolu yow da ngay jéem mais nekkul moyen financier nga amul mais ressource humaine nga dul am mais yëgle bi nan lay demee waaw yëgle bi man en personne dama ko doon wax chaque jour hmm. dañuy fexe ba parce que entourage si réyul jigen ñi am nañ mbootaay boo xamante nii jigéenu koñ bi yépp ñoo ci bokk ñoom de leur part à chaque fois dañ koy réussir parce que ñëppay génn mais góor ñi ñun ñooy xool dem mbeex ma dox nii romb bëccëg bi ñi nga gis ñu tok nga ñëw wax leen dañuy set setal dimanche xam nga loolu aussi au delà de ça ab panelu endroit bi tamit nga dugal ko fa def say flyers ak yooyu au delà de ça mënoo mate ñëpp parce que comme ni nga ko waxee am na ñoo xamante ni guddi xam nga ñooñu munoo munoo munoo di leen wër. mais yëgale boo koy yëgale endroit fii yaakaar naa ni bu ñu fi wootee set setal yëguma ko day jafe. Hmm. mais est-ce tamit euh, jaar ko ci tuur yi. Hmm. ak ci daayira yi. parce hmm. que tamit information bi du xaw a jàll boobu quoi comme ça nga bàyyi ba ñuy def tuuru. <coughs> dimanche jigéen ñi nga ñëw. wax ak ñoom. yi moom nga leer na moom. daayira yi gars yu bëri moom. dañuy dem daayira. nga fekk leen fa. maanaam expliqué leen. xam nga xam nga da nga wax euh, ne méthode bi daayira di utiliser euh, dama lay wax surtout méthode bi daayira murit di utiliser hmm. parce que aussi euh, modèle daayira murit pour man du entourage, kese mais ñi ko war a jël comme considération dafa bari hmm. boo xoolee ci niveau organisation hmm. tey ñoom fexe nañ ba impliqué couche sociale yëpp maanaam couche sociale yëpp lañ impliqué boo xoolee am na ñu ndaw ndaw ñuy jàng xasida mm. am na ku leen koy jàngal mm. am na ñu mag ñoo xamante nii ñooy def sàmfaale yeeg yooyu mm. am nañ ko leen jiite am na ñoo xamante nii ñoo yar xasida yeeg lu jëm ci événement yi mag yi am na ku leen jiite maanaam couche sociale yëpp ngay laal mais seule différence bi mooy lii ngëm-ngëm la te bëgg sa dëkk ci jaamu yàlla bokk mais ñun aussi ci lislaam dañuy fàtte éduquer nit ñi ci lislaam ci boppam ñi woote waaraate ak yooyu dañuy fàtte yar nit ñi ci bëgg sa dëkk ci jaamu yàlla la bokk bu ko defee tey maanaam daayira bi su wootee mais ñëppay ñëw ñëppay ñëw mais bu conseil de quartier wootee mais danga naan man sama yoon nekku si léegi li nga xamante ni wax nga ko li nga xamante moom mën a nekk comme solution nga approché daayira yi wax ak njiit yi ñoom aussi ñu fexe nu ñu sensibiliser ñi bokk ci daayira yi parce que tey bu gisee ñoom mm. maanaam bu ñu dugalee seen kàddu rek mm. man yaakaar naa xëy na non day changé parce que bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee modèle murit mm. bu tey jëwrin bi ne dimanche dañuy bale dëkk bi ak modèle murit nu muy doxee ñëppay génn ñëppay génn loolu mën na nekk idée boo xamante ni nii tey mën nañ ko employer pour nettoyer dëkk bi defar ak yenn yu ak bari <coughs> mais au delà de ça loolu ngëm-ngëm la ngëm-ngëm pour man ni nga gëmee yoonu murit noonu nga war a gëmee sa dëkk parce que aussi lee jaamu yàlla la lii jaamu yàlla la fi nga juddoo yaree fa màggee fa te patriotisme aussi quoi qu'on puisse dire ci l'islam la bokk hmm. ci ci l'islam la bokk mais est-ce que ñëpp xamee nañ ko noonu donc li nga xamante nii mooy prochain conseil de quartier bi war a ñëw hmm. ñun li ñu leen mën a dimbale si xalaat mooy li nga wax nii dama dégg prochaine. waaw prochaine bi war a ñëw parce que aussi. yow xam nga xam nga. naroo continuer wala wala. xam nga li ma li ma li ma la wax sànq moom moo si nekk. Hmm. man dama nekk si contrat wu jàmbur. Hmm. donc euh, moom ma sama bopp. Euh, nii nii nii mën nañ ma woo ne ma suba ñëwal. Hmm. buñ ma wooyee ne ma suba ñëwal suba damay dem. suba damay dem donc mënuma continuer aussi si lancé boobu. boo gisee ma ne na responsabilité bi yëpp dama koy adossé encore moom mooy que ni man maa am loo xamante nii daf ma bett suma dund parce que boo yaakaaree ni damay toog ñu proposer la contrat boo xam ne munoo ko bañ da ngay dem mais man su ma jëlee ba pare dem parce que ni ngay amee retour noonu la amee retour parce que fii entourage la rëyul mm. nit ñi dañuy ne waaw ñëw jël suñu conseil bu parti ba pare dem yoonam loolu nit ñi dañ koy wax mais mm-hmm. tamit est ce que yow soo a démissionné. Mm-hmm. est la ko nangul parce que yow tegoo fa sa bopp. dañ la fa du question de man mënu ma démissionné. voilà man li ma mën. mooy niñ ma ko joxee woon noonu laa koy delloo. waaw maanaam delloo boobu laa. waaw ñi mm-hmm. la ko joxoon dinañ la ko nangul. waaw nangul bi moom mënul ñàkk parce que aussi. xam nga contrat wu 3 ans la. ren nii mooy dernière année bi. mais boo gisee doo jëlaat respons même responsabilité bi moom mooy que ni comme yow. xamoo parce que gis nga nit di nga dugg si dara te doo xam exactement lan la comme tey ni ma dalee bëggum mu dalaatee ma noonu comme tey nga jëlaat engagement ne damay yore ko conseil de quartier bi fi nga nekkoon ñun la sa contrat nangam nangam man ñaanu ma ko yàlla parce que man ki ma signé contrat bi ma waxee contrat am man 3 ans su ma ko Sénégal parce que man Sénégal mooy sama dëkk fii laa xam fii laa mën dundee mais tey am na yenn proposition yoo xamante ni bu ñu la ko proposé munoo bañ. loolu mooy problème bi maanaam munoo bañ. waaw léegi loolu laa wax yow bañal bi du mën a nekk parce que aussi benn mandat benn année moo ci des muy ren. donc waaw mais bëgg bàyyi. waaw ñoom nga continuer. moom laa xam nga maanaam bëgg taxut a nga bëgg dara. Hmm. taxul loolu mën a nekk parce que aussi li nga wax sànq logique pour logique mooy loolu bureau la vingt cinq personnes la. 25 personnes ku nek da nga am responsabilité ku nek da nga am responsabilité man boo euh may adossé responsabilité bi moy man sama formation personnelle man mm. loolu laa jàng maanaam bu ma ak nit dina xam man kan laay donc pour éviter bépp polémique wala bépp problème parce que aussi ñun sénégalais dañu dañu mëna wax te lu am. foog ñu am kuñ doxal maanaam ñun presque éducation boobu la ñu amu fet maanaam bu dara xewee foog nga am koo joxoñ ne kii moo ko yàq pour yow ñu bañ a wax yow la mm-hmm. donc su fekkente ni yow tamit da fiy nekk na non man lii rek laa yoroon kii tamit moo yoroon lii moo yàq vingt cinq personnes ku nekk naan kii moo yàq mm-hmm. tey su ngeen woote woon assemblée générale tamit xuloo ay kii moo def lii kii moo def lee mais pour éviter tout ça ah da ngay wax ni man maay président man maa yàq. monsieur le maire quoi comme que comme que mandat yi ñu fi jot a jaar yëpp. gis nañ ne maanaam en trois daal. taxawaayam dafay xaw a des lu bare bare bare. waaw comme ni ma la ko waxee sànq rek mooy nit ñi da ngay taxaw di ñu ne kii dafa bañ monsieur le maire kii Babacar Mbengue la bañ affaire yooyu noonu xam nga jullit utul ku muy bañ maanaam li ma la wax sànq rek moom moo ci nekk maanaam ñun. yàlla dimbalee nañu ba toll nañ suñu àdduna foo xamante ne nii te dañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax bu ñuy bëgg nit te yàlla tax lay doon bu ñuy mere nit aussi te yàlla tax lay doon Babacar man dama koy wax di ko waxaat nee naa fii Sénégal fii Sénégal il est l'un des meilleurs politiciens ci ci ci Sénégal waxuma yaraax ci Sénégal parce que li tax ma wax ko mooy. Babacar Mbengue nit ñi dañuy fàttali ni yaraax musul fal Babacar Mbengue waaw yaraax mus ko fal. Mm. méritam la nag parce que aussi nit ku am vision la. pourquoi yaraax musu ko fal. waaw si en 2009. Mm. boobu conseil municipal yi ñoo doon fal maire yi maanaam dañuy fal conseil municipal yi conseil municipal yi fal maire yi boobu Babacar mi ngi doon ñëw yaraax nit ñi xamuñu ko mu dem ballottage mook Ali bi mu demee ballottage mook Ali Mbaye nit ñi bu ñu fàtte ni consensus moo tax Babacar Mbengue jël mairie bi parce que demuñu vote Ali Mbaye ak Babacar Mbengue dañu am consensus li ñu waxtaan ba juboo ko ñoom ñoo xam kon donc consensus boobu moo indi maire Babacar kon ñun faluñu ko ñu dem deuxième mandat Babacar boobu xalifa mi ngi téye Ndakaaru ci loxoom boo seetloo campagne boobu sax dañuy def foto xalifa Sall bu mag def foto Babacar meng bu ndaw ci suuf moom lañ defee yarax yëpp donc foofu ci bannière boobu la jëlee mairie bi kon donc coalition bi lañ fal <clears throat> nga ñëw bi mais Yewwi Askan Wi mm. mooy ci barkeem la ñëpp demee mairie mm. kon ñun ban moment lañ fal Babacar ñu ne tey dem nañ campagne Babacar Mbengue kese moo déposé kenn toppul ci ginnaam fal nañ ko loolu amul kon donc méritam la parce que li tax mu nekk méritam la mooy li mu la wax léegi côté politique il est l'un des plus aguerris comme politicien ci Sénégal parce que aussi il est fort en communication Nek na nit bo xamanteni ni dafa dal nek na nit bo xamanteni ni ku xam nit la xam ni muy waxee nit kon ñun mënuñu xam loolu yëpp am ku am yar la aussi am na yar. bo gisee may bo gisee may wax li may wax. damay lay tayé sama wax pour ñu xam ni. Hmm. man awma ben rancune. Hmm. envers Babacar Mbengue au contraire nit ku ma respecté la. mais nag dafa fekk ni ñun en lañ dëkk entroit lañ am en trois lañ xam mais Babacar Mbengue Yaraax en général mais ci ci ci magistère u Babacar Mbengue <coughs> amul lenn lu palpable loo xamante ni mën nañ taxaw fii ne lii Babacar Mbengue moo ñu ko defaral loolu amul te bu fekkente ni nag dañ la former mm. nit ñi non seulement amuñu accès ci yow parce que Babacar wa en droit amuñu accès ci mom muy benn deuxièmement moy yow ci sa magistère munoo jël sax ben ben trottoir nga ni trottoir bi Babacar Meng moko défaral wa waa lolu benen affaire la benen bi ci des moy que ni même événement yi am en mais Babacar bu événement amé Yara Tefess mais moy sol yëreem dem Babacar moy sol yëreem dem mais fi événement en mais depuis combien d'années gisoo Babacar kenn xewle mu ñëw yónnee na rek mais pour la muy yónnee te bu dee yarax tefes mu dem kon ñun amuñu rancune ak Babacar dafa ñu amalul benn njëriñ nit nag bu la amalul njëriñ wax dëgg fa yàlla doo fi nekk naan ko yaa def lii ak yaa def lee te defal la dara ñun waa en trois bañuñu Babacar daf ñu amalul njëriñ sur les aspects nag. mais lan moo tax. mu mën a dem te itam mënut a wala boobu ñun dañoo amoon. non parce que aussi mooy li ma mooy li ma la wax mooy li ma la wax c'est des calculs politiques. Hmm. wax naa la léegi ne la c'est un politicien aguerri yi dafa mën a politique boo xoolee tey Antoine ak Yarax képp seen base électorale solide wul Yarax moo gën a peuplé parce que gis nga <laughs> non Babacar wax dëgg yàlla man ni ma ko meree te mu nekk dëgg parce que li muy def yëpp il le fait sciemment. maanaam lépp lu mu def suba ba ngoon moo ko tey xam na ko du ñëw en droit parce que en droit 15 fi nekk du fi def dara parce que 15 personnes ñoo fi nekk waa en bu ñu ko meree mënuñu changer cursusu élection fii Sénégal ci mairie bi parce que amuñu électorat buñ koy buñ ko mere woon ba àdduna di tukki mënuñu ko fal wala ñu folli ko parce que amuñu doole boobu xam na loolu comme moom defar intéressé wu ko. cursus politique moo ko intéressé mais c'est tout à fait normal bañ a faalew en droit mais man du ma mere Babacar ñi dëkk en droit ànd ak Babacar man ñooñu laay mere parce que aussi man du ma ak nit ci yaa ma neex du ma ak nit parce que loo may mosal doo may mosal parce que mënu dëkk si dëkk faale woo dëkk bi ma lay topp loolu moo nekk li nga ni pour man la Babacar di def il la fait sciemment xam ni deful dara en droit parce que xam na ni en bu élection jotee amuñu benn poids ci li koy fal wala mu koy folli mais au delà de ça xam na ni dafa ko mën na ko mairie bi am na ko parce que da nga war a décentraliser maire ñëpp sa magistère ñëpp nga yilif mais tey benn modien bu bëggoon gis Babacar Mbengue pour ma wax la dara benn anecdote dinaa la ko wax tey bëggoon naa fi organiser benn événement comme li ma la wax sànq la man ci tous mes ci ci coaching ma bëgg a def benn événement boo xamante ni ci développement personnel lay doon mais pour ma gis Babacar Mbengue mais six mois ma topp ci ginnaaw gis gis monsieur le maire waxuma gis président gis monsieur le maire mais six mois mënuma ko gis parce que en trois laa dëkk mais Babacar Mbengue ay jigéen bu ñuy tànn mbeer yi raatafis pour ñu gis ko du doon dara kon donc lan moo waral loolu mais kooku grand Youssou franchement man lan laa war a wax ci lu rafet ci moom bañuma ko dafa fekk ni faale mais faale ko faale wuñu ko lu ko neex mën na ko def te wallaahi man dama koy wax et je le répète te nëbbuma ko te ku ma xam nga xam ko xam ni da waxtaan waxtaan moom dama la koy wax suñu yitte yëpp dañ koy def mu jóge fi eh, mais lu ñu def leneen amaluñu njëriñ suñu yitte yëpp dañ koy def lii vidéo bi na egg ba mu jot ci dañ koy def pour mu jógee parce que amul ñu benn njëriñ ñun waa droit parce que ñun bu fekkente ni tey li ñu soxla suñu marché bii tey ñu naan ay tey lay pare mandat bi lay pare kii ku xam ku xam ni administration du fonctionnaire nga xam ni Babacar mënu ko defer si magistère am mandat bi mënu si defar marché ay budget bi génn na jënd nañu kër yeeg yooyu lañuy wax. dañuy nax daal. dañuy nax mais grand Youssou. lépp loo gis dafa am procédure bu jëndee kër gi dañ war a joxe marché bi ay recensé nañ taabal yi ok recensé nañ taabal mais ana plan ah bu defee plan tey naka ñan lañ koy jox ñi ñu koy jox nan lañ lañ koy joxe heure bi woote woon nga pour wax nit ñi ñu xam mi marché bi période bii lay commencé période bii lay jeex nombre de boutique bii lay am nombre de douche bii lay am nombre ci suuf nombre de table yi ñoo fi mën a nekk bu jeex buñ ci jotee ñii ak ñii ak ñii lañ koy jox wax nañu ci dara bité bi génn rek ngay dégg def gañ na bàyyi caaxaan yi mu nekkee te xam ni ñun suñu yite suñu yite gis ku ñu candidat ñun yàlla nañu yàlla bëgguñu politique amuñ sa jot bi mais suñu yite euh, <coughs> non man moom li ma wax jour hmm. àdduna nit du ne du def waaw nit du ne parce que àdduna dafa gudd tànk te kenn xamul suba lan mooy xew mais nii nii nii may waxe yow nii amuñu benn ambition politique si suñu bopp la ñu nekk suñu njaboot waaw ci suñu bopp ci suñu njaboot mais bu ñu gisee candidat boo xam ni il est à la hauteur hmm. ñun dinañ jël suñu énergie yépp hmm. pour jàppale ko mu jël maire bi liggéey ko te yamale waaye rax yépp hmm. waaw loolu moom buñ ko gisee sunu farata lañ koy def waaw mais Babacar moom amuñu benn dent ak moom ku ñu respecté la. pourquoi pas mënul nekk yow yaa jàppale mënul nekk man parce que aussi xam nga xam nga nit ku nekk bët du yanu. waaye xam na lu bopp attan. Hmm. te man dama gëm benn affaire man boo gisee ma naan la politique du léegi parce que dama gëm ni politique ci lim la fekk rek ci ngay dimbale wala nga bañ ci dimbale gis nga politique su la fekkee ngay daw ci say soxla. Hmm. boo toogee say soxla ngay njëkk régler waaw bu la fekkee yow ngay daw ci say soxla hmm. soo toogee say soxla ngay njëkk rek bu la fekkee à l'abri du besoin boo koy def ndimbali nit ñi moo tax bu boobaa nit ñi dinañ nekk sa yitte waaw loolu moo tax man ma naan du ma def politique mais man lépp luy doxal dëkk dañ ciy dañ ciy yëngu te dañ ciy sonn mais nag comme ci sunuy soxla lañ ne dañu hmm. lijjanti suñuy soxla ba nekk à nag du besoin bu boobaa leneen lu ñuy def ci politique mun naa am amaana ñu def ko mais nii nii nii moom nañ nekk suñu bopp ak suñuy soxla rek. ah kon xanaa nga jox sa dernier mot rek bu ko defee tàggatoo comme ci euh, conseil de quartier bi ñoo tamit mm. ci euh, politique bi. bu ko defee après nga jox sa dernier suñu dernier mot mooy di leen sant bu baax Youssou euh, di sant aussi Capa TV parce que seen liggéey rafet na mm. moyens yi demeewul noonu mais li ngeen man yéen a ngi koy def. ci couvrir li nga xamante ni nii moom moo fi am. Mm. di wax waa Anturois rek ne leen nañu abone mm, surtout parce que bay ci say weewi tànk. Mm. parce que nit ki pour man lépp looy jàpp di ko def. dooleel sa bu gox ba mu jóg moo ëpp solo fuuf parce que yeneen seen yi ñuy seetaan. contenu yi ñu leen jox. pour man dañ leen koy jox parce que dañu am moyens yi. mais boo dooleelee ki nga xamante ni moo la jege ba mu am moyens yi contenu boo soxla dina la ko jox te moo la gën a jege. kon donc nañu abonné Capa TV yi képp ku dëkk en trois na nga abonné koo xam mën ko influencer mu abonné nga influencer ko mu abonné. Mm-hmm. bu video yi duggee aussi ngeen koy aimé di ko partager. parce que aussi loolu rek moom mooy doole bi à part di jéggalu ñëpp nag si kàddu yi. bu fekkee am na loo xamante ni nii wax nañ ko mu déranger nit ñu ngi ko si jégalu bu baax a baax a baax du woon suñu intention. Mm-hmm. di jégalu imam ci kàddu yi moom it ñoom ñooy suñuy kilifa di jégalu tamit chef de quartier ci ci ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko seen ginnaaw te yëguñu ko di wax ni entroit suñu entroit la. Mm-hmm. su Jama Brut nag dañ koy jël yóbbu ko si bijoutier bi. mu taaye ko mm-hmm. nettwaaye ko ba mu mën a doon loo xamante ni nit mën na cee fay xaalis pour jënd ko nit moo mel noonu mm-hmm. kon bu ñu bu ñu jëlantee di boddi compte yi kii yaakaar ni moo gën kii kii yaakaar ni moo ëppale lii kii kii yaakaar ni kii dafa bon te xam ni dëkkandoo jàmm moo ci gën mm-hmm. bu ñu joxantee loxo nekk benn amul lu ñu mënul def bu ñu féewaloowee ku nekk boo demee sa kër di nga lekk di nga naan mais bu àdduna doon li sëñ Cheikh naan bu doon lekk ak naan ak sëy kese mooy àdduna boo demee ci gétt ga fekk ko fa waaw kon nañu dund humanisme te di wax sama rakk yi surtout nag message bi foog ma lancé ko quoi Baye Youssou mm-hmm. surtout sama rakk yi mm-hmm. ñi nga xamante ni ñun ñoo leen mag parce que majorité problème bi ñoom la majorité problème bi ñoom la mm-hmm. di leen wax ni leen gis nga samedi jot nga dem louer appartement bulow dundu li nga bëgg dundu dem baal yooyu yëpp ku ne jaar na ci <coughs> waaye gis nga nit lo bon bon bon yéene wo sa doom bon mm-hmm. Lo bon bon bon yéene wo sa Lo bon bon bon bon yéene wo sa jarbaat bon lépp lu ngeen mënti def ba seen dëkk soxla leen pour man jël leen ngeen teg lépp ci suuf ñëw wuy si seen dëkk def ko ni ngeen ko war a def après lu ngeen di defi ngeen dem defi ko parce que majeure partie génération boobu amul lu koñ bi di def nga gis leen ci te loolu c'est problématique ñoo fi ëpp. Hmm. ñoo fi gën a nekk ay xale ñoo gën a toll seen diggu doole mais lu dëkk bi di def duñ ci taxaw te loolu dafa ñaaw. waaw loolu rafetul kon di leen wax ni leen amuñu lu ëpp fii tey boo demee Almadies hmm. ay nit dafa dëkk boo ñëwee yaraax ay nit a fi dëkk boo luyee appartement almadi benn fan nga fay fanaan mm-hmm. li des ci weer bi yëpp fii nga koy fanaan mm-hmm. mais kon fi ngay fanaan nit ñi di la fi fekk si say nit di la fekk si mm-hmm. pour man nga def mu mel ni mu war dem ba ku fi fekk si naw kon nañu nañu góorgóorlu bu dëkk bi wootee ak lu mu mënti doon nga sol sa dàll takk sa ndigg ñëw taxawu sa dëkk ba mu mel ni mu war a mel après looy def nga def ko parce que fii kenn laaju fi kenn dara kenn sasu fi kenn lu mu mënul li ñu bëgg mooy dëkk bi mel ni war a mel ndax amuñu lu ko ëpp te àdduna mënul neex aussi am lu ko ëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégaluwaat ñëpp di sant yuusu bu baax a baax alhamdulilah di